صوت الولد سرسار حمدي وشور لما كل بيسار لو لدندون صوت الولد سرسار حمدي وشور لما كل بيسار asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julliti mbokki taalibe yi mbokki Touba Argentine ak li ko wër bu ngeen déggee xaside yooyu jib rek ngeen xam ne am na lu ko waral lan moo waral xaside yi mooy journée xaside bi nga xam ne ñu ngi koy taxawal fii ci Touba Argentine ci ndigalal mun taxa moom Cheikh Mouhamadou Lamine Basir waaye it ci ndigalal Serigne Mor Talla Sall jëwrinu fédération bi xam naa du ñàkk rek dañuy yëkkati kàddu gi jox ko ki nga xam ne moom mooy jëwrinu organisation muy Serigne Maam Thierno Amar bu ñu noppee rek ñu jox Serigne moor Talla Sall. mbokki jullit yi mbokki taal bi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen siyaar bu baax tey ñaanal Serigne Mountakha Bachir mu gën a yàgg lool gën a wér ba lim yéenee liggéeyal ku tedd ko def ko ni ko soobee ak mboolem jabatu Serigne Touba gi yëpp rek di leen siyaar bu baax a baax di siyaar sunu jëwriñ sëñ mi nga xam ne mooy jëriñ fédération bi di ciy jiital waroon jiital sëñ Cheikh Matilay mi nga xam ne moo fi toogee jotaay ab Serigne Touba di waa Touba TV ak waa euh, waa Touba TV di leen rafetlu seen teewaay fii rek kàddu yi nag xam naa kàddu yu gàtt la bu gisee rek muy soññee surna xasida bi nga xam ne si moom la ñu war a amalee fële La palaata muy tombeeg le 9 juillet ñu ngi woo nag mboolee mbokk jullit yëpp rek ci comme nin ko xamee rek ñu mobiliser fas yéene le 9 juillet rek ñu dem li nga xam ne nag mooy organisation bi ñi nga xam ñoo ko jiite mooy képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi rek am na lu la ci war te xam nañ fi ñuy déparé muy Plaza Once bu dee Maroon wala muy Linière wala fu mu mën a doon rek bus dana fa jóge képp ku nekk nag xam nga li nga xam ne moo yóbbu moo lay indi kon daayira bu nekk am na kaye bu fa nekk kon nag yaa ma yaakaar mbokk taalibe yi amuñu lu Serigne Touba te Serigne tamit amul lu dul xasida yi kon buñ ko wooteelee bis rek muy xasida yi war nañ ci def suñ kem kàttan ñun ñëpp ndax amuñu lu dul kon nag ñi ngi woo mbokki taalibe yi fu mën a nekk rek nga nga jéem caa teew ak mboolem yére yi nga xam moom gën a fonk ak lépp loo xam ne moom mu gën a fonk ñuy soñ tamit suñ mbokk taal bi yëpp rek képp koo xam ne yaa ngi fay invité nit rek nga wax ko na nga xam ne moom la barab ba yellool mu ñëwee fa noonu ndax bëgg nañ ko dem nekk bisimilahi rahmaani rahim jeexal ko alhamdulilahi la alamin nga xam ne daañ ci dëppoog jataay bi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg te ñun loolu rek la ñuy war ngërëmul sëriñ bi rek kon nag ñi ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn rek incha allah di woo nag képp koo xam ne yor nga kaye rek ñi ngi ko war andi fii kër Bouba Thiam la première lañ fi daje pour récupérer kay yi nga xam ne moom lañ joxe woon kon ñu ngi ciy woo ñëpp képp koo xam ne tamit yor nga kees goo xam ne kees sëñ Tuubaa la ci dëkk bi tamit ñu ngi ñaan booy ñëw xur journée xasida bi nga àndaale ko ndax dañoo bëgg defar yeneen tamit boole ko yooyu ba beneen kër bu nekk ci biir dëkk bi rek ñu dugal fa kees mu jëm ci liggéey sañ Tuubaa nga xam ne par trois mois lañ koy récupérer di woo mboolem waa organisation rek ku ci aju rek nga xam ne heure mën la soxla nga ñëw ko waaye bàyyi ba nga xam ne si heure bi nga xam ne passé na wala bi la woo ñëwee ko boobaa day sooxeel liggéey bi te organisation daanaka mooy liggéey bépp kon nag xam naa dañuy gàttal kàddu yi rek ndax mu bañ a guddi jox suñu jëwriñ sëñ Talla mu sànni ci kàddu ñu ngi leen jéglu bu baax ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maolana muhammadin lil makin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ginnaaw bi ñu sante yàlla jullit suñu sang sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam di ñaanal alxalifa sëriñ muhammadul muntaxa mu yàgg fi lool te wér di nuyu mboole mbokki taalibe yi nekk ci réew mi yëpp nuyu boobu nag ñu ji ci jiital sëriñ Cheikh Matilay Mbàkke mi nga xam ne mooy suñu kilifa fii ci réew mi di am ay taxawaay yu am solo yoo xam ni lépp loo xam ne lislaam bi la mu duñ ci jiite ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko siyaara di soññee tamit kàddu yi ñuy soññee di ko soññee tamit ci ay ndigalam ku ne xam na ni nag dañoo dëtmal bis bu am solo boo xamante ni bii sorna xasida lañ koy wax sorna xasaayit ren jii nag ñu fas ko yéene defee ci fële ñuy wax laa Plata incha allahu taala te ñoo ko fas yéene def la 9 bii ñu jëm le 9 juillet ci lañ ko fas yéene def incha allah ci biir loolu nag buñ buñ xoolee dañuy gis nii Eh, bii ñu jëm nii mooy sunu juróom-ñeenteelu édition ñu di ko def waaye nag bu fekkee bi fédération bi taxawee ak léegi la bii mooy ñetteelu yoon ndax defoon nañ ko fii fi ba defaat ko fii ci capital ren ji ñu war ko génnewaat loolu nag bu ngeen gisee ñu def ko mooy jublu ci ak yaatal ak bëgg rek maam ñëpp jariñ ci xasidaay Sëriñ Tuubaa ndax soo ne xasida ku ne xam na ni lu am solo la ndax xasida eh, lépp loo xam ne Sëriñ Tuubaa am na ko rek xasida mokk ko may loolu tax na kon xasida dañuy wax tuuti ay bëy sax ci njariñul xasida ndax euh, xasida nekk na loo xam ne sax kenn mënta wax lépp waaye nag euh, sëriñ bi da cee wax lu baree baree baree bare ndax ndax kiraamati xattu yeddi rek bu ci yaman sax loolu rek dégg-dégg la boo xam ne maanaam maanaam kawe na kawe goo xam ne maanaam yéemi na ci biir lool nag sëriñ bi daal di wax ni wàcc xal bihi xat yi sururun abada li jumlatal am laak yaaman xubida mu ni xasida yi day fépp foo xam dañ koy jànge maanaam malaayka yi sax dañuy ñëw di ko teewlu kon nga xam ni malaaka moom lépp daraam lenn caaxaan moom amut ci moom kon lépp loo xam ni jóg na di ko teewlu rek maanaam loola loo am solo la Sëriñ Tuubaa dellu waxaat ni wàcc xal midaad yi fawqa kulli maa i barakatan ka matri sama yi mu ni sama xasida yi def naa ko mu mel maanaam mu barkeel ba mel ni ndoxum taw moo xam dafa jóge ci asamaan wàcc suuf mu ne ndoxum taw bu jógee ci asamaan wàcc suuf noonu muy naatale suuf si nga xam ni suuf si day changé daal di wert am ñax daal di juddu mu barkeel nee na xasida yi képp koo xam da nga koy jàng maanaam sa xol noonu lay mel ci bëgg yàlla ak sopp ko ak bëgg Sëñ Tuubaa nga xam ne Sëñ Tuubaa noonu la ko bindee foofu am na feneen foo wax tamit daan ne wàccal xuruuf yi ujura baaxee bi leen te xaa ilil jinaan raafiya mu ni xasida yi maam yow suñ borom xasida yi na nga ko def maanaam ci képp koo xamante ni day sàkku aw yiw maanaam bu dee jàng xasida yi xasida yi maanaam day yokk aw yiwam muy am aw yiw di am aw yiw di am aw yiw ba tàbbi àjjana nga xam ne loolu Sëñ Tuubaa moo ko jagleel maanaam mbokk yi nga xamante ni bi dañuy yëngu ci xasida yi journée xasida nag ku ne xam na ni ñun nëkkul ni ñun ñoo ko jëkk taxawal réew adduna bépp ñoo koy taxawal kon nag dafay war buñ ci jot bu bu ñëwee bu ñëwee ñun ñëpp ñu xool maanaam comportement yi nga xam ni moo moo war ci ñun maanaam ñu def ko comme ni ko organisation bëggee ñu déggoo ci ak moom ci biir loolu tamit sëñ Tuubaa waxaat na ni kitaabati tu basirul Mustafa wa inda iblisa tafuuxul mitfaha mu ni xasida nekk na loo xam ne fu ñu koy jàngee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day bég day bégal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba pare di protéger ki koy jàng ngir saytaane du mën a agsi ci moom ndax kon xasida kon mooy lépp ndax koo xam day yokk saw yiw ba pare di la maanaam di bégal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam wëlbatikuwaat saytaane nga xam ne moo jaaxal ñëpp sëñ Tuubaa ni képp koo xam da ngay jàng xasida rek maanaam dina dox sa digg ak saytaane dina sa diggante saytaane ba saytaane du ma du am ci yow ab cir ba mën laa dévier ci yenn yi nga xamante ni bii maanaam doo loo bëggut lay doon sëñ Tuubaa waxaat na feneen ni kitaabati faaxat suyuuxa tarxiya wa kullu xayri wa suyuuxa tarxiya nga xam ni kon maanaam ak defaru daal xasida yi ci gën a gaaw ndax xasida yi maam sëñ Tuubaa ne day yóbbu nit directement ci yàlla ci lu amul benn benn werante ci lu amul benn sikki sàkk nga xam ni kon lépp lu ñu sàkku daal maam moo ngi ci xasida yi ko defee nag ñu fonk bis boobu te bàyyi ko bu baax a baax comme maanaam suñu mbokk yi niñ ko ñëpp euh, yéenee nga xam ne dañ ko fas yéene tàmbali ci bismillah rahmaan àggale ko ci alhamdulilah bi alamin comme niñ ko daa def ci édition yi jàll yëpp xam naa dañuy gàttal foofu bu ko defee xanaa di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp di nuyu suñu mbokk yi nga xam moo di Touba TV ak waa Tiwaawoon TV di rafetlu seen liggéey wax dëgg yàlla ci liggéey fédération bi ndax liggéey bi tamit ñun ak yéen rek ñoo ko bokk te gis nañ ni yéen a ngi ci def seen kem kàttan ngir sellal ko ak ak yaatal ko loolu ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax di jaajëfal mbokki taalibe yëpp di woo ci bis boobu mboolem fu ab taalibe bi nekk rek ñoo ngi ko ci woo amul tijaan amul xaadir amul laayen ndax muridu laay moom maam ñëpp nekk ci biir kon nag ñoo ngi ciy woo suñu mbokk yi di ko tàmbalee ci Sëñ Mamadou Ba moom la ñoo ngi koy woo ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne woo nekk ci réew mi yëpp su ko defee rek ñu bokk bàyyi xel la plata lañ ko fas yéene defee incha allahu taala ci la nuuf boobu bu ko defee rek bu ñu amee leen luñ ci war a jàllale incha allah xam naa di ko jàllalewaat kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ah, lii lañ leen fi indiloon di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. حمدي وشكري لمن كل بسارة لو ردان دون صوت الولد سرسار